nafar gi téré Serigne Touba bi tudd Masaalikul jinan tay am mbégte bu baax a baax ci dellusiwaat ci nafar ko ak yeen di dellu di ndokkeel julit ñëpp ci at mu bees mi ñu dugg euh, muy atum junni ak ñent témer ak ñeent fuku ci atu julit ñi di ñaan suñu borom def ko muy atum jamm mu ànd ak xewal te mu ñu fekke ko ay at yu baree baree bari di ci baalu xaq ñépp tey baal ñëpp àq comme niñ ko waxee rek di am mbégte bu baax baax di dellusiwaat ci téere Sëriñ Tuubaa bi tudd Masaalikul Jinaan ñu war a jeexal tey buntub li jëm ci jàngu alquran ak lu ci aju insha allahu taala ñu ngi tàmbalee kon tey wastaxsanu taqbilana lil musxafi kal waladi sagiri nadban faqtafi sëriñ bi di wax ne ci boroom xam-xam yi sopp nañ lool di faral di fóon ab kaamil soo ko amee nga koy fóon lu bari comme ni ki ñu soppee di fóon ak gone gu ndaw ndax loolu day tegtale ak cofeel gu nit ñi am ci moom fóon gi itam day cofeel day tegtale cofeel gu am ci alquran ji wa jaal wa jaalahu aydan ala ala kursiyi tatyibuhu kada ya uqayi ba léegi sopp nañ itam ab kaamil alquran boo koy teg nga teg ko fu kawe seize wala fu kawe daal sopp nañ itam nga tàmm di ko gëttal maanaam di ko parfum ndax loolu itam luñ sopp la day tegtale coxeel moom it ak respect ak wekk buñ teg buñ am alxuraan di ko teg ci kaw di ko di ko parfum لكن جعله وسادة منع لأنه محرم فلتترع waaye nag jël alxuraan ji def ko njegenaay maanaam lu mel ne njegenaay di ci weeru ak yu mel noonu wala tëdd foo xam ne moo kaw alxuraan ji nga xam alxuraan ji nekk sa suuf loolu moom dañ ko tere bu baax a baax maanaam àgg na sax ci araam kon mu ne na nga sàmm na nga fonk lool ak ak ak sàmm aw jacla cheyin fawqahu min kutubi ilmin kada tadxiluhu bilxushubi noonu dangaa dangaa ci sa bibliothèque wala fi ngay teg say téere danga am alquran am yeneen i téere nee na bul jël mukk yeneen téere yooyu nga xam ne bokkut alquran di ko teg ci kaw alquran ji sax li ñuy faral di def doo nga daal yu bari tàmmoon nañ ko mooy bu ñuy def dara teg alxuraan ñu jël aw xeer wala bant wala sax suuf teg ko ci kawam ngir téye ko ba ngelaw li loolu tamit les di tare la lool lool lool aw gayriha maanaam kada tasxiluhu bil xushubi aw gayriha bant xeer teg ci dara loo xam ne daal bokkut ak alxuraan ji xam ne fee kaw alxuraan ji loolu lu ñu lu ñu war a la lu ñuy tere la wa maddu rijlayni lahu kada taalluqun fa janib ak itam teg alxuraan fenn foo xam ne boo tàllee say tànk sa tànk yi day jëm ci alxuraan ci lu mel ni ki nga teg ko foo xam ne daal day mel ne yow soo tàllee say tànk sa tànk yi mën naa laal sax alxuraan yi wala mu la mu jublu ko lool lool lool loolu itamit lu ñuy tarale lu ñu maytandiku la ak maanaam teg ci sa maanaam sukkandiku ci mel ni dangaa teg alxuraan ji sukkandiku sa loxo loolu daanaka moom njeganaayu gi ñoo xaw a ñooy xaw a niroo loolu tamit des koy des koy tare wa nadabu taxsiina qatti almusxafi wa kada wa hakada tabyinuhu nadbun yafi sopp nañ loolu itam booy bind alquran nga mbind ko mbindin mu rafet te leer maanaam boo koy bind nga fexe ba bind ma rafet ànd ak leeru nañ ba nga xam ne kenn ku gis baat yi baat maanaam ku ko gis dina xàmmee baat sàngam ak xarfu sàngam loolu itam ne luñ sopp la ci alquran وهكذا التصحيح بالتحقيق من غير تخليط ولا tarqiiqi ni ki noonu tamit di ko wéral maanaam ginnaaw soo ko bindee ba maas ko ba noppi nga xool ko topp ko bu baax a baax ba gis ne amul benn yàq amul benn jumte amul benn jaxase bu ci am tamit te ngay fexe ba bul ko sewal tar taxlit bu mu am taxlit bu mu am tarqiiq maanaam bu mu jaxasoo maanaam aaya bu waroon nekk fii nga dugal ko nga dugal ko feneen fu mu nekkutoon fu mu war a nekk lu mel noonu wala sawal ko ba nga xam ne ku koy gis ku ko ku ko ku ko bëgg a gis faaw nga sonn ci wala sax far doo ko gis nee loolu tamit lu mat a ci euh, alquran kon daal boo koy bind nag bind mi rafet te leer boo ko bindee ba bu bind mi rafetee leer te leer maas ko ba noppi nga topp ko ba mu wér tamit lu mat a lu mat bàyyi xel la ci topp ko mu wér tamit nga maytu ci jaxase gi ak sewal gi وكرهوا ورقة صغيرة يكتب فيها مصحف قصيرة maytul tamit jël kaamil bind ko ci diggante bu tuuti nañ uh, nga faral di gis kaamil boo xam ne day tuuti lool ba du nuru kaamil ndax tuutaay bi lool tamit nees ju maytu la li tax ñu koy moytu mooy tuutaay bi dana tax nit ñi duñ ko bàyyi xel duñ bàyyi xel ne ni kaamil alxuraan ba ba sax ma nañ koy jogge wala wala yu mel noonu wala nga jël aw kayit wu ndaw bind ci ab aaya alxuraan wala saar woo xam ne kayit bi mën naa dem fu nekk mën naa dem ci suuf mën naa dem sax ci toilette yi mën naa dem sax ci camp yi te loolu tamit lu ma tamaytu moo tax soo bind alxuraan daal nga fexe ba bind ko foo xam ne fu sell la te mu nekk fu beggani foo xam ne euh, ngelaw du ko fa jëlee mukk ba yóbbu ko fu sobe nit tamit du ci toog ngukk ngir ñàkk koo seetlu ngir tuuti gum mooy kaamil yu ndaw yi wala bind jël aw kayit rek bind ci saaru alxuraan bàyyi ko noonu muy taxawal وشكله قد أحدثوه والنقط صيانة له من اللحن فقط نانا ماس جينكوي ماس اك تومب جينكوي تومب مانا ماس جينكي جيس مانا بني جانج الحمد لله رب العالمين جيس نان با تومب اك با فوفو جيس نان تومب اك يا فوفو جيس نان تمي ماسكا جي الحمد جيس ماسكا يت جيس ماسكا نك جيس ماسكا لونك جيس ماسكا يت تشوف yépp dañuy gis ne li ko waral li ko indi ci alxuraan ji mooy dañ ko doon dañ ko def ngir ragal ay yàq di ci am ndax fi ne euh, dañuy wax ne sax am na ku doon jàng iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mu ñëw jàngee ko ataaka bi abdin wa ataaka bi sab'in fi mu ne nii loolu boo ko tombut loolu lay nirool ngir daw yu mel noonu rek moo waral ñu tomb ko ñu xam ne yaa dañ koy tomb ci suuf taa dañ koy tomb ci kaw buñ ko maasee mu nekk ya nga xam ne loolu liñ ci jublu rek mooy ñoŋal alxuraan ji ba yàq du ci mën a am kon moo tax wa karihu tafriqahu ajzaa an malikin nassa bihi man jaa li qawlihi fi matnihi subhaanah inna alayna jamaahu quraana ba léegi tamit taqale ko maanaam sib nañ tamit tàqale ko ci ay xaaj daf ko xaaj ñaari isib juróomi wala benn sax loolu euh, imam malik moo ko wax daal di tegtaloo ayab suñu alquran bi suñu borom di wax ci sootul qiyaamati inna alayna jamaahu wa quraanahu foofu la sukkandikoo xëy na maanaam firee ko ne suñu borom nee na alquran ji moom suñu borom la war mu boole ko ci maanaam boole ko def ko benn moom la war tamit mu def ko luñ mën a jàng ci leer ci làmmiñu yonent bi man ko jàng xëy na noonu lañ interprété aaya bi ñoom ba sukkandiku ci ne dafa dañ ko sib teqali ko ngir bu sekkee suñ borom da ko boole nit warut ñëw di ko teqale waaye tamit am na ñeneen ñu am beneen déggin ci aaya bi ne yonent bi sallallahu bi ko Seydina Jibril di indil alquran su ko jàngalee ab aaya yonent bi da koy toppaat di ko toppaat di ko jàng jàngaat ngir ragal ko fàtte moo tax suñu borom wàccee ci moom aaya bi ne ko inna alayna jamaahu wa qur'aana ñun la war maanaam suñu borom moo warloo nga moo warloo boole gi maam virus sax nga koy toppaat toppaat gu metti ndax lu ci war a dajaloo suñu borom dana ko dajale loo ci war a wax itam suñu borom dana la ko mën a wax loo ci seen àmmiñ kon jërut toppaat bu bëri bi day mel ne loolu moo ko kon xam day mel ne lay wu mujj wi moom moo gën a lëng ndax itam bu fekkoon nit ñi dañoo dajaloo di jàng kaamil kenn ku nekk mënta yor ab kaamil di jàng ci kaamil boobu ñaari isib wala benn isib waaye buñ ko xaajee kenn ku nekk mën jël ñaar juróom isib fukki isib ñaar fukki kon day mel ne bu mujj bi moom moo gën a moom moo gën a lëng donte sax lu njëkk li am na ñu ko wax taadaaduna umuura da tanzili na dahra ila tatwili nee na daal buñ bëggoon a lim mbir yi nekk ci alxuraan lépp day mujj daanaka suñu jamono ji yëpp ci lañ koy def donte jar na ko sax jamono ji yëpp ci lañ koy def waaye bu leen fàtte ne bi dafa am lu ko taxoon a jug dëgg dëgg dëgg li ko taxoon jug mooy fal nan fal nansarif ila nidaami ma zahar huna aanana alayhi dul qadar kafa bidi fawaidan lil muktafi fal nasrif al qawla ila tasawufi nee na daal nañu yam rek maanaam ci li nga xam ne moom lañ jot a wax te doyloo ko xëy na keneen ku bëgg am gëstu bu gën a yaatu am na yeneen téere yu ñu gën a gëstu alxuraan waaye nag lim ci jot a wax ci ay njëriñ daal xëy na doy na moo tax mu ne kon nañ nañ nañ jublu nag ci li nga xam ne moo taxoon bind téere bi te mooy jëmmi tasawuf ci boppam kon bunt bi ñu war a jël mooy fas faslun fi tasawuf incha allah di am njortul lu rafet ci ne doon wax leer na tey yeesal bu baax baax ndokkal gu ñu ndokkal mbokk jullit yëpp ci at mu bees bi ñu dugg di ñaan suñu borom def ko atum xeewal te jéggal ñu suñu bakkaar yi ñu ci nar def yëpp te musal ñu ci seytaane sax ba sax duñ ko far def asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.